asalaamaaleykum mbokki déglu dal leen ak jàmm opposition nga nekk ci assemblée nationale dañoo fas ne jël projet de loi bi nga xam ne barke Demba Ndiaye la ñu ko daal di euh, voté jël loi boobu nag daal di koy yóbbu ci kanamu conseil constitutionnel aujolikay bii di Sud Quotidien mi ngi ñuy xamal ne bu ñu sukkandikoo ci ay kaddu Cheikh Abdoulaye Bamba Dièye nekk ab député euh, non inscrit moom daal di ne xam xamle ne dina dinañu daal di am signature yi war ngir attaquer euh, projet de loi boobu ci kanamu conseil constitutionnel suñu naataango yi di ñu ñi nga xam ne ñoom ñooy député yi bokk ci l'opposition bi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy ay député non inscrits ñoom dañoo fas yéene nag yeggale xeex bi euh, ci kanamu conseil euh, constitutionnel léegi kay li ñuy laajte moom mooy ndax seen requête boobu dina jàll euh, ci kanamu conseil constitutionnel ndax ci juli kay bii di Sud Quotidien moom fàttalikuwul daal fu conseil constitutionnel daal di gàntale nag benn recours bu bàyyeekoo ca assemblée nationale rawatina nag ñi nga xam ne de ñoom ñooy ci ay kaddu maître El Hadj Omar Thiam nekk consultant en droit et spécialiste du contentieux des affaires moom gëm na ne l'opposition bi wax nañoo mën a déposer ab recours ci kanamu conseil constitutionnel su fekkente ne daal la ñu leen di laaj ci limu ay député am nañu ko ndaxte conseil constitutionnel ñoom dong ñoom rek de ñoom ñoo mën a fësal seen kaddu jëmale ko ci wàllu loi bu ñu voté ca assemblée nationale wante diir bi warul weesu juróom benni fan ba léegi daal ci lu procédure euh, pénale julikaay bi di 24 heures mi ngi ñu xamal ne ba léegi euh, jiixi moo am ci bopp sénégalais yi wante it su fekkente ne daal dinay dëggal nag projet de loi gi ni mel mën na am tamit mën naa wëlbatiku ci kawam njiitu réewum Sénégal di Macky Sall moom tey ji ñu ngi koy xaar fële nga xam ne moom mooy ci diwaanu Thiès di benn dëkk ñaari gaar foofu moom pëccxoo nar na faa am ndaxte dafa mel ni ne teextu gi ñu bëgg a teextu njiitu réew mi dafa nar am lu koy xajamal ndaxte lu weesu xëccoo bu am ci diggante waa APR ak tamit ñi nga xam ne ñoom ñooy waa réew mi ci biir APR ci boppam sax am na xëccoogu tar goo xam ne nag moom la ñu fa nemmeeku ci naka la ñu fas yéene nag tertoo ki nga xam ne moom mooy Macky jolikaay bii di tribune nekkoon mburoog soow gañ doon wax fan yi yëpp suñu may tuuleen dafa nar a xajam foofu nga xam ne moom mooy ci diwaanu Thiès wante jolikaay bii di critique mi ngi ñi xamal ne kii di moom taxaw na temm pare na sax ngir nag Macky Sall nañu ko tertoo ci ndukumaan bi ak tamit ci dëkk yu nekk ci bët gànnaaru réew mi nu ko raw la ñu ko nar a tertoo nag fële nga xam ne moom mooy ci diwaanu Thiès ndaxte idi daf cee xar tànku tubéyam idi dafa fas yéene wane boppam loolu loo coli kay euh, bii di critique daal di euh, fësal ñu wax ci euh, programme boo xam ne dañu ko fay teg ngir xeex mbënn bi ci nu mu waree mu amoon coow lu métti gu ci juddu woon ba assemblée nationale yónni woon ab mission parlementaire ngir ñu daal di koy liñatu démb naa ko coli kay bii di mi ngi ñee xamal ne mission boobu daal dinay fësal liggéey ga mu doon amal ñoom lañ ca gis moom mooy daal ni lañ doon xaar ci wàllu programme boobu gis nañ ko ci wante lii quotidien moom daal dinay gis ne ci wàllu programme boobu

daal di leen indil ay saafara ndaxte sonn nañu bugg nañu jot seen passeport ci ni mu waree suñu ñëwulee ba fii ci biir Dakar ngir defarlu ko duñu ko mën a am ca dëkk ya ñu nekk ñu jeexalee ko ak wàllu tàggat yaram njëkkee ko ak wàllu football culikaay bii di stade di ñëwaat ci jongante bi nar a am tey ci huitième de ci wàllu euro mu nar a ci diggante Angleterre ak Allemagne culikaay bii di stade di ñu xamal ne match bu neex a ngi nii démb moom France ñii di waa Suisse ñoom ñoo leen génnee ci wàllu euro boobu culikaay bii di stade Wade ne loolu kon moom mooy firndeel ne jongante bii de am na ay surprise yu bëri yuñ ci ràññee ndaxte ginnaaw ba ñu éliminé waa euh, pays ba samedi bi ñu jógee Portugal bu Cristiano Ronaldo ñoom it daal nañu koy jëlee ci wàllu jongante boobu démb ñi nga xam ne ñoom ñoy waa France la ñu mujjee génnee ci li nga xam ne daal moom mooy euro yi ci wàllu lambo colikay bii di suñu lamb di ñëwaat ci jàkkaarloo bi amoon ci diggante Boy Niang 2 ak Tapha Tine suñu naataango yi di ñëwaat ci nekk kàddu yi nga xam ne moom la combat boobu moom xeex bu tar dina ci am Tapha Tine ne a mesdames et messieurs bonjour l'opposition parlementaire et le code de procédure pénale nonobstant l'adoption par l'Assemblée nationale de cette controversée loi euh, lors de sa séance plénière tenue vendredi dernier le groupe des députés de l'opposition et leurs pairs non inscrits ont annoncé demander la poursuite devant le Conseil constitutionnel de leur combat contre ce texte de loi qu'ils jugent scélérate. Dans le journal Sud Quotidien, nos confrères décrire donc le tollé suscité par l'adoption au niveau de la représentation parlementaire de la très controversée loi sur le terrorisme n'est pas sur le point de s'estomper et pour cause, l'opposition parlementaire et les députés non inscrits envisagent de solliciter l'arbitrage du Conseil constitutionnel afin d'invalider cette loi jugée la question que se posent nos confrères du journal Le Sud Quotidien, c'est de savoir si cette nouvelle bataille de l'opposition contre le pouvoir en place devant cette haute juridiction a des chances de prospérer, d'autant plus que la plupart des recours introduits par l'opposition contre les actes pris par le pouvoir en place sont rejetés au final par les membres de cette juridiction constitutionnelle. Néanmoins, Maître El Hadj consultant en et spécialiste du contentieux déposer un recours auprès du Conseil constitutionnel si elle a le nombre de députés requis. Seul le Conseil constitutionnel peut être saisi pour statuer euh, sur la constitutionnalité ou non d'une loi visée par l'Assemblée nationale dans les six jours avant la promulgation de la dite loi. Cette saisine pourra se faire soit par le président de la République, soit par un groupe de députés représentant au moins le dixième des membres de l'Assemblée nationale. Et après tout cela, il appartiendra au juge constitutionnel d'apprécier librement ce recours recours par un double contrôle de procédure et de fond. Dans le journal 24 heures, nos confrères nous indiquent que dans les esprits des opposants, le président Macky avec cette loi, met le pied sur le plancher pour ne plus euh, les voir exercer leurs droits de marche et de manifestation, sensibiliser l'opinion publique et imposer leur agenda au régime. Mais qu'à cela ne tienne, pour le journal 24 heures, le président Sall est averti et pourrait voir cette loi, si elle capitale est attendue à Thiès aujourd'hui et nos confrères du journal L'Info nous parlent d'ores et déjà d'une mobilisation hétéroclite à l'accueil donc du chef de l'État. La visite de Macky à Thiès est partie pour enregistrer une véritable bataille de représentativité entre les différentes composantes de la coalition présidentielle, mais aussi entre les responsables apéristes eux-mêmes. Le Mouroxo tant chanté pourri à Thiès, c'est ce que nous disent nos confrères entre euh, apéristes et réumistes. Mais en tout état de cause, retenons avec nos confrères du journal critique que euh, concernant cette visite de Maki à Thiès, Idrissa Seck compte marquer son territoire et après avoir été accueilli triomphalement lors des étapes de sa tournée économique dans le Ndoukoumane comme dans le nord du pays, le chef de l'État Macky peut donc rêver d'une marée humaine à Thiès où le maître des lieux Idrissa Seck a déployé toute sa science politique pour leadership incontesté dans la cité du rail. Parlons à présent du programme décennal de lutte contre les inondations. La mission d'information parlementaire sur la mise en œuvre de ce euh, programme a tiré hier un bilan satisfaisant en termes de construction d'ouvrages d'assainissement et de logement pour les sinistrés. Nos confrères du quotidien Le Soleil qui nous en parlent nous indiquent que les députés ont insisté euh, sur l'harmonisation des interventions dans la croisade inondations a plutôt présenté un bilan mitigé, car même si les députés ont noté des avancements, il n'en demeure pas moins qu'ils regrettent plusieurs manquements. Dans le journal Alerte, nos confrères nous relaient les plaintes des émigrés qui ont d'énormes difficultés pour obtenir un passeport. Nos confrères nous indiquent les émigrés dénoncent donc un blocage au niveau du ministère des Affaires étrangères. Et nous terminons par le sport. Dans le quotidien prévu aujourd'hui mardi. Angleterre-Allemagne, un match de rêve, mais aussi un match de la peur. Et hier, toujours en huitième de finale, la France a été éliminée par la Suisse. Pour nos confrères, ces taureaux semblent défier toute logique et après l'élimination surprise des Pays-Bas samedi dernier, puis l'éviction du Portugal de Cristiano Ronaldo tenant du titre, c'est un nouveau favori qui est passé à la trappe. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.